laaj la quoi. ay ca laajal tontu la. Sénégal lay gis ñu toog. Mm. ñu ne nguur gi li ñu fi nekk du dëgg du yoon. Mm. nguur gi dañ ñoo yeb. Mm. ñii dañ ñoo bañ. man tey su ma ne woon bëreet tey ni kaay leen ñu dem taxaw buntu avenue Rum. man sama waa kër ñooy njëkk taxaw ne ma nit day teey nit day dal. c'est important pour moi ça veut dire que dans la vie il y a deux choses accepter crever la dalle de faim donne misérable ou se battre Sénégal nous nous, acceptons ni président Macky Sall dit def li mo def nous nangu ko parce que ku ci si sa famille ah. principe. li taxoon ñuy xeex en 2012. Mm. léegi jamono bi dañu naan non non non ñii dañoo doy waar léegi ñii dañoo doy waar ba moom la nguur gi di dégg di dolli. xanaa da nga naan loolu la sa waa kër di dégg chaque jour suba booy xëy si. ñu ngi naan nguur gi ay bandi lañu de da koy dégg nguur gi xam ne loolu nit ñi dañuy toog naan noo ñii moytul ñii ñii ay bandi lañu ñii ay wuy lañu moo tax li ñuy def duñu ko bàyyi dañuy continuer di ko def waaw comme nag Sénégal boobu la ne na ku ne xam nu moo bootee mbirum. ñun mm-hmm. Nous sommes mu comme pour il faut que les uns soient les uns des uns soient des uns mm-hmm. que les uns et des uns se retrouvent pour devenir bi normal mm-hmm. lañ toll Nous, nous nous nous et puis on ne râle plus mm-hmm. on on laisse faire mais toog di râler et puis chaque jour ñu dolli ñu benn ñu toog fi ñu toog finalement c'est pas la peine. Mhm. ça donne plus envie et très sincèrement la dernière fois je l'ai dit yàlla seede na ni j'ai plus envie. dina dina baax yàlla buy defar dafay mel ni kuy yàq des fois on a l'impression que dara bougéwul mais média et juste.